suul bébé. waaw bi lañ dóor. ñi suxoon de. deux jours ma lay woo mënu fexe ba jot la. ah ça alhamdulilah alhamdulilah. mais tu bien. ça va tranquille. est-ce que tu as mangé. non lekkee ñëw ñi ngi ma kidnappé nga may waxu lekk. man dama jaaxle sànq ba léegi fii laa toog lu ne def naa ko woote naa damaa jaaxle ça fait deux jours ngi nii lekkuma naanuma. mënuma sax lekk mu jàll. lu nekk lañ ma def dañ ma dóor. mais il faut nga porter plainte. kaay ñu dem ma bunge la nga porter plainte ah. non mais je dama am problème. problème wu lan. problème mu xaalis. yow xam nga sama compte bi dañ ko tëj. si yaa ngi doon wax. sama argent de poche li ma dajale woon yépp lu ci bëri gars yi yóbbu nañ ko te xam nga ni instant bii nii cent million laa bëgg a retirer moo war a ginnaaw suba. te léegi il faut mu laaj ay frais ak yooyu te man dama préféré woon ni cinquante cent millions yooyu bu génnee cinquante millions yi sa loxo laa koy teg nga def lu la neex dem fu la neex ma aj la ba ci kaw. ok léegi xoolal xam nañuy def mhm. man duma la nëbb xam nga mhm. mais fan yi li ma retiré dafa bari trop. instant bi il faut ma xaar vingt quatre pour mën a retirer xaalis parce que bi nga demee ak léegi lu nekk def naa ko. instant bi benn solution rek laa gis mooy que ma woo sama yaay essayé xool na xam dinaa jot ci moom xaalis foofu àbb ko. Ah, waaw c'est possible c'est kay baax na mën na nekk.